وإلى الله المصير قل إن ca nag ba génn ci benn déggin boo xam ne jàpp nañ ne loolu lañu sëriñ bi di def lool ñu ne sëriñ bi dafa wax ne dafa bëgg jàngukaay boo xam ne dafay tàmbalee ci suuf fii soog a dal baas yi ba ca ñoxoxtal ñu ne kon bàyyiwul mel ni njàng njàng mu am njëriñ waaye bàyyiwul kenn ku bëgg a jàng ak loo bëgg a jàng tam loolu njàng mu am njëriñ ñu ne kon dañuy def ñeenti xaaj benn

teel bi nekk moom mooy njàng mu kawe mi ci ñaar fukki taax ak juróom-benn euh, fukki hectare ñaar administration bi moo mujj sëriñ bi moo ko tuddee aljabhatul muridiyya lil ulumi wal amal kuréel boobu dafa dajale ay moroomi xam-xam di ay taalibe yu dëggal di ay ingénieur ak ay expert te liggéey bi sàkkuwul ci dara lu dul ngërëmal yàlla ak ndëgum sëriñ bi sëriñ bi nag mu bëgg ci liggéey bi mooy nga na baax na leer kon saytu bi dañu koy def ak jabaxal yi ci fànn yëpp ba liggéey dëppoo ak ni mu war mel maa ngi ñëw nag ci li nga xam ne mooy sottal liggéey bi loolu nag dañuy dellu cosaan ci yoon bi mooy ñaq ak ñuqi ku bëgg a feeñal sa yéene ci liggéey bi ci joxe xaalis mën na ko defee ci juróomi juróomi anam yii may bëgg a lim ba ca jëkk mooy nga teg ko ci loxol sëriñ bi ba tegu teg ko ci loxol kii sa buntu ci sëriñ Tuubaa ñetteelu mooy nga dugal ko ci compte yi sëriñ bi joxe am na mbokki taalibe yi léegi yu ko doon séddale ci mbooloo kon juróom-ñaari compte la xam ne sëriñ boo ko joxee te ku ko ci dem na fa war a ku ñëw itam ci daara ji bëgg na ñoo tëral aw yoon ngir mu mën a te mu àgg ci sëriñ bi waaye nag yoon yi mu njëkk lim dee leen waaye nag kàddu gi dinaa ko jël ci làkkin bu nga xamante ne xëy na fi ñu toll ci jamono fépp ci àdduna dañ ci mën a jot man tamit traduire que man xam lépp lu nga xamante ne mbir mi moom la làmboo kon sëriñ bi dañuy jëkkalu rek ci nasaraan bi nga xamante nañ ko jël pour lire ko discours euh, Cheikh Abdoul Ahad DG bu Touba Matelib monsieur le khalife général des Mourides et l'ensemble des familles et chefs de Seigne Touba. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le directeur de SOGI, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le préfet du département de Mbacké, Monsieur le préfet du département de sous-préfet de Dame, tous les invités en leur nom et titre, honorable invité monsieur et madame je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir répondu à cette pose de la première pierre du projet de construction et d'équipement de l'université coranique Khadimou-Rassoul mais une salutation toute que Dieu l'éducation de ses enfants revient à sacrifier le de son peuple. Et je sais l'intérêt que vous portez à l'éducation des jeunes et des femmes et l'orientation vers le modernisme de notre communauté. C'est pourquoi je vous exprime toute ma reconnaissance et une gratitude sans fin de nous avoir fait confiance, nous mourir de surpoids, pour nous confier la construction de cet ouvrage majestueux qui va marquer notre le fait de nous avoir ordonné cette construction nous réconforte dans l'idée que par vous, c'est toute la communauté de Mourites qui m'a charge de travail, dont je suis fier et volontaire, et dont la réussite sera aussi notre gain. Cet ouvrage universitaire sera le bien de tous, mais aussi permettre de donner les enseignements à l'éducation que nous voulons pour nos enfants ici au Sénégal, sans sortir de environnement. On parle aussi ngeen bàyyi seen soxla ñëw fekk si sëriñ bi liggéey yi nga ne moom ci taxaw ak ak ñu ko daan yëpp ak ñu jëkkaat ñu moom ci taxaw xëy na xëy na bokk ci yëpp ñu ngi leen di tudd Touba ci kanam Touba kenn nag mbokk ay taalibe yu daje na fa seen liggéey ne seen lu ñu fekkee tey jii mooy dañoo bëgg seen dimbali mu tax ay jëf kaay ma wax la kaay ma nangu woon te lii ñu naan la suñu tubaab ñu bàyyi ñu sonn ñëpp si dàbbatu yi fexe ba si mu tulaa waaye ni ma ko ci kanam mbooloo bi xataay jamono tax damaa génne woon 37 mille francs yooyu a wax jamono nga xam ne ko bokk ñoom tàmbalee ko ci suñu ndaxaa bi nga xam ne mooy suñu xarit parce que sëriñ si bi nga xam ne jëriñ ak ñu bokkal ku nekk seen Tuubaa yëpp tàmbali ci ñoom bu noppi tàmbali ci siyaas yi nga xam ne seen Tuubaa moo def seen maam bu noppi dikk dong yi nga xam ne ñoo ñoo bokk yoon si mun taxaan yi mu santaane lu yombam ci dara mag ñi lañ lekk lugal jafe foofu boobu la alal dana jafe waaye woon bu seew waaye dañ ko séeréer góorgóorlu parce que mag yi amoon ba indi raay bi tubaab parce que yoo xam ne mag yi amoon ba fi juwaan parce que boobu dañ ko war a yeesalaat te xam ne mel na moo xam ne kenn nga woon fukki nekk si ginnaaw kon fukki fukki fukki benn mag bu nekk bu dee fukki nekk si ginnaaw nangam million de waat na fi mbir bu xalaat bi mu xalaat ñu bëgg liggéey Sëriñ nañ ne lii état moo ci boppam ñëpp la gouverné ñëpp loo dimbali ci kon nag ñu wàllu su bopp rek jégal ko mu jàll dimbali ñeneen ñu mën a jàll kon loolu laay ñaan mu nit ñëpp jaayee Sëriñ Tuubaa 37 milliards yi fi wax 1 million képp bu kenn bu jox 37 mille ma la 37 damay ñaan kon ku yàggal Sëñ Tuubaa ku xam Sëñ Tuubaa jàll na dara joxe transfert bi li mu tulaa si mu taxa transfert bi yaari àgg li bëgg mu am yàgg waaye Sëñ Tuubaa kenn du ko nanal dara mu jox ëllëg ndax moom li ñëwoon da ko liggéey Sëñ Tuubaa ba am ñëpp gis nañ fi alaji baara bi nekk seen xarit juróom-ñaar fukk ñëw ñaata yëkk teg ko jox murid yi wala jox doomu Sëñ Tuubaa def ko suuf ñu fi nekk mooy yàggal Sëñ Tuubaa jëmal Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dana gërëm képp ko Sëñ Tuubaa jël ñu dégg suñu dara Sëñ Tuubaa kon ñun ñëpp war na gëm Sëñ Tuubaa mooy Sëñ Tuubaa ñun ñëpp war na ko jàpp ñu bëgg Touba Ca Kanam li mu tàmm bi dañoo wax ne ab laytaal rek la waaye dañ ko séenu ànd ci liggéey ba lu ngeen lu ngeen ci def loo ñu def foo ñu féete rek suñu féete bi incha allah taala lii am suñu baaxoo ndax day yëngu Touba jëm ci kanam Touba jëm ci kanam nag fi fi ñu njëkk tàmbali mooy xam-xam la tàmbali ndax ko xamul dara loolu mooy jëf dara beneen bi ku amul alal borom année boo nañ leen ku amul alal doo mën a dara loo yéene yéene yéene tabax am nekk te amul ñaar ko tabaxee du sotti beneen bi boo amul doole borom borom ku amul doole joo ci si joo liggéey si doo ko def beneen bi ci boo xam ne amoo xel dafa doo ko def borom xel yi war nañ leen ku am xel dafa ñëwal ku am alal ñëwal ku am doole ak ñëwal ku am suuf ñëwal ñëpp war nañ leen loolu ñeent yooyu ñu ko ci wàcc kanam ngir waa taxawal yoon yi li mu suñu doon moom waaye tey jii xeeb naa lu bari tam si si naa loo xam ne xeeb naa ko lu xeeb waaye nag lu son sama yëg lay waxee mooy tey jii bi fi bi fi mu taxaat koy trente six milliards yi ñu war a waxal benn waaye trente six milliards kenn ko waxal ndax ku ne suñu wàcc yëf yi nag yëg yi dëgg la boo dee analyse am xel bu sax ndax seytaan yaalu ko fa xaw yàlla bu sa seytaane boo ko liggéey boo boo joxee li foofu ci ne te doomu aadama bu demoon naa ko ba nga ko laaloo bi ñaata yoon ko wat bi sa xef sa xef jàkk boo laalee sa ko nekk kon nag yàlla boo ko a mu jox li gën a la boo ko joxee yàlla boo ko nangu ko jox yàlla yàlla du ko du ko suñu ko say ku jàpp ne liggéey suñu raw na raw suñu ko ñëw lépp lu ñu ci di ko ci di ko ci mag njëkk ñi bi ko defee ko te mooy liggéey surtout bi ci université bi kon nañ ci yaay jiwaat taxawu ci waxuñu barkeel jëf li ñu wax ay milliards ay milliards barkeel jox ko milliards barkeel yox ko milliards ci boppam ñu ne la woon suuf si yéen a defee sa borom ne du ajjana waaye suuf si ko xëy sa jël suuf kon suñu doon dafa gàddu mu jeex na ma digal ndax ginnaaw fii yàlla ak yàlla te ñaan yàlla bàyyi ko suñu borom su dara ko dafa ko ndam ci yi xamul liggéey mooy sant kilifa yooyu yëpp ñu ñaan la waa Touba ca kanam yëpp ñi bokk ñi ci a xam na mu toll xam xam toll ñu gis nag moo naan rek beex suñu rajo loolu laa amoon jox maa ngi gërëm seen Bachir sëñ Ahmad Dabi ñu jëlal bokk ñu teew yëpp di ñaanal yàlla suñu borom dimbali ba kii dégg bu taxawee dañuy wax benn way ñu taxaw waaye ndax sëñ kenn lu ko naan dara mu jëm kanam di wax sëñ Basiru Abdu Xudus yow ñu fa yàlla kenn borom nga xam ne sa maam yi sëñ la wax sa morom sëñ di tàmbalee ci kër borom saam bañ ko sama sam ñëpp la la wax yow yaa ngi def sëñ ànd nga ca ñoom waaye soñño nañ la ci ndax sama maam la mu taxawoon sëñ Tuubaa di ko liggéey foofu soñño nañ la soññaat si bokk yooyu bokk ñëpp nga xam ne yéen seen maam yi bokk sëñ Tuubaa ñoo bokk sëñ Tuubaa nañ leen ak ñu liggéey Cheikh Seydou Fall yi kenn mën nañ ci Baye Fall ñëw nañ bàggas mu dañ dem rek dem rek deux millions cinq cent mille ñu Baye Fall yooyu def nañ rek jëf na kenn mën te yëmut loolu yàlla dana jox ëpp loolu yàlla dana jox ëpp loolu kon may may may seeral sama cant ñoom ak sama gën te sant njaboot suñu tubaab gépp rek ndax ku yëg xam naa xëy na ku ku ku seen na moo seen waaye ku ñëw ci yow ba leeral ko ba nga xam ne fii la départ fa la jëm da nga ci am kon sëñ bi maa ngi jëm maa ngi jëm kàddu yi war wuñ dara sa kàddu bi moo gën a def soo kàddu ndax kaddu sëriñ bi kaddu sëriñ moom doole ko daal yi lay day waaye gis ni mu am solo ndigal bi yow yàlla kon ndigal laa ko sañul ko sañul di soo ci lu mu di yow di sëriñ Tuubaa jàppale ko ji bi ñi ne féete ñi féete ñi kenn ku nekk rek ñu complète la rek ñu mottalante rek ñu bëgg day fa maa sant yàlla maa ngi sant leen gërëm te ñaan suñu borom defal ñu tawfeex defal ñu sëriñ Tuubaa na mu suy tànn na mu suy jëf yàlla ko di jël salaamaaleykum jëf balaa baax xam-xam day jiitu Cheikhul Khadim nee lépp lu ngeen di jëf na ngeen jiital xam-xam su ngeen bëggee yi nga xam ne taamu jël Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ko yow nag di ci teel musique waaye dama topp day xam ne lii nga doon ko def ndax.